néeg maa ngi dégg muy onk mënul sax a wax soxna na fi mbay mu ngi ko tiim naan ko papa as la waaw papa as la waaye mënul sax wax mu ngi onk rek mu ngi onk rek ma tiim ko lu yàgg daa di yëngal sama bopp xam li ma xam rekk daa di wàññeeku naka laa wàññeeku semaine bi mu wuy jee benn mag ñëw fekk ma fi ma toog ni ma sa rakku papa bi fi des kan la ma ni ko sëriñ Pap Malick mu ni ma ah kon bay boo nga pareel ku nax dafay dem billaahi wal kitaab fekk beneen mag ñaan ma ma recevoir ko ki ko fekkee mu ngi toog mu ngi nii mag maa ngi toog sax xam naa dafa bañ ku ko xàmmee mu ni ma dafa am lu ma la doon ñaan ma ni ko lu mel nan mu ni ma nga jël sa oto dem seeti sa bay Pape Malick ma ni ko demal nga wax ko góor gi ba mu d'accord mu mel ni ku jaaxle ndax li ma ko ne wax ko góor gi moo tax bi ma ko ko waxee ñu teg ca une semaine ñu dàggi sëriñ Bam Malik ma di ko tooñ moom mag boobu ne ko léegi nag ku may seeti mu jaaxle ndax affaire bi def ko fi jóge kaw mu ne ma ah, li ma ci xam ma ni ko ah, mu ne ma kër gi yépp tey jirim lañu yow lañu ñu dese waaw waaw ba tax na kon nag ku yóbbu di teey boo xamul lu xew nga bàyyee xel ñi xam lu xew ñu wax la ba ngeen jógee ca dëj ba da ngeen ñëw ba ca bunt ba ñu ni du ngeen dugg Cheikh Mbeng mi daf ma yónnee message ni ma la tadxulanna al masjid al haram insha allah waaw aminin wa muxalliqina ruusakum wa muxassirin yàlla xam na ko ma ko ah, xaayaan ka dëgg séeréer mu mel ni kon nag boo xamee lu xew dangay teey dafa am mag mu nga xam ni magu Sëriñ Cheikh la Sëriñ Cheikh moo daan def buy ñëw gàmmu kursu bi mu ne ma jëlal ma mag mi ci sa oto moo tax bi fi góor gi jóge ba léegi bu may ñëw ci événement moo Katim Touré bi